ziar bi ñu ñëw nag ci ndigalu euh, monsieur le ministre Diène Farba Sarr ñu jënd nag yi ku ne xam ne nag yi c'est des millions ku ne xam ne nag ren lu mu chéré nag bu gën a tuuti rek mi ngi jël trois cent donc boo si jëndee ay vingtaine ah kon kooku kat war nañ ko sant yàlla di si sant nag monsieur le ministre Diène Farba Sarr waaye di sant nag son excellence monsieur le président de la république Macky Sall mi nga xam ne moo ñu dooleel bañ mën a am lii di ko jox jaamu yàlla yi moo tax rëccuwuñ ci benn yoon su fekkoon politique moo ñu tax a jóg.

li nga bëgg duñ la ko defal parce que ñoom amuñ li nga bëgg li nga bëgg mi ngi ci yàlla moo ta lépp looy def rek def ko teyal rek tax yàlla dina la gën a yokk pourtant bañ dala def ba léegi est ce que sonn nañ man de yëguma ko man te nag lu ñu def nag ah mi ngi bëgg bari depuis six ans ziara musul aw defuñ ci ay millions depuis six ans social musuñ def te defuñ ci ay millions depuis six ans gàmm depuis 6 ans ñu ci ordonnance depuis 6 ans ñu ci gox goxani yi ñu ci infrastructure depuis 6 ans ñu ci hôpitaux yi depuis 6 ans ñu ngi gagné Kaolack nangaan avec le ministre de Farba Sarr le grand coordinateur donc lolu lu koy wane moy def te yàlla tax kep ku def te yàlla tax waro sonu kep ku def te yàlla tax waro xadi ndax yàllaay fay yalla am fay nit ñi amuñu fay may autre sama mbokk politiciens yi ne leen soo leen buggee di jàppale président Macky Sall soo bi bëggee di jàppale wax dëgg yàlla euh, njiiti réew mi fii pour mu am dam dee leen dee leen euh, euh, approche am approche ak population Kaolack waas bi bu leen xaarati ba élection ñëw ngeen gaddu ay million wala gaddu ay oto di ko force population bi dinañ ko lekk te duñ la voté lu lu le plus important mooy approche bi ngeen def approche ak population bi ñu la ñu bëgg ah nit ki mënu la teg loo mënul bu la tegee ordonnance su 100000 boo amee 10 000 francs may ko su fekkee moom kooku gëm na teel tax dina ànd ak a tax.

siège yu Macky Sall bi lañ soxla lan lan mooy lan président Macky salla xam naa ne yaa ngi liggéey li fi am mosu fee am waaye nag sa siège bi lañ soxla dinañ fexe nag ba yàqal la jeunesse bi dinañ fexe ba diaboliser nit ñi ba nit ñi bañ la. loolu nag lu koy faj mooy jeunesse bi aussi xale xale mooy wax ak moom moo tax ñu sàkk ci président Macky Sall loolu mosuñ koo laaj mosuñ koo ñaan mais i faut mu dooleel jeunesse bi il faut mu dooleel ñi nga xam dañ koo gëm il faut mu dooleel ñi dañ koo bëgg. Nous mune a wàcc terrain parce que nous mi wax la communication la su que aussi président mi ngi def lépp ci adduna bi te ñi fait fait communications. amul communication président deful dara Macky Sall fait def Sénégal président Macky Sall Sénégal amul président et donc mi ngi commencé mi livre qui et donc ñuy la jeunesse Nous ak nous toute la jeunesse Nous avons des gens dañ ont gëm di nekk ci terrain di la ak population au fin fond di dem ci askan poste de responsabilité. amuñu une poste de responsabilité et état état un franc nous ngi wax sama baat ci kaw la presse état un franc on se débrouille on marche avec des béquilles financières lu ñu am la ñuy débrouillé di le président Macky Sall parce que kat teraanga bu ñu yor moo ñu ko ji. moo ñu ko des kon boog na dooleel Diène Farba Sarr aussi Diène Farba Sarr Kaolack da koo soxla Diène Farba c'est un homme de valeur Kaolack dafa soxla valeur te ku ne xam ne Diène depuis 2012 il est là amul élection bu mu Nous wut mosuñu am problème élection ici à Kaolack mosuñu ko am Diène a tout gagné et donc l'équipe qui gagne on la change pas on la change pas donc ñu ngi ci président Macky Sall avec beaucoup de respect beaucoup de respect wuñu euh, forcé wuñu defuñu dañ koy ñaan rek famem toute toute la famille hein, de la mu Nous la Nous ñu la autour du table waxtaan Nous nous kat dafa am lu Nous lu Nous dafa a besoin des hommes de valeur mu oom Diène Farba Sarr Mariama Sarr ñoom Mimi Touré ñoom Modou Ndiaye Rahma bàyyiwuñ kenn ñëpp ñoo xam ne ñoom Baba Ndiaye ñoom ñoom ñëpp benn julum na ñëpp ñëw ñu toog ñi nga xam ne yàlla cëra na ñoo war a jiitu ñu jiitu ñu war topp si ginnaaw ku dul toppee kenn du la topp alal taxul nga jiite ça veut pas dire que tu es milliardaire war a jiite jiite xam-xam lay doon jiite jagle la yàlla moo lay jiital nga doog a jiitu mais ku jël cëru jàmbur rek di daanu ku jël cëru jàmbur di nga daanu cëru jàmbur kenn du ko jël yàlla cërale yàlla def kii si xolu jaam yi yàlla jël kii mu bégalee ko lii yàlla jox kii xam-xam jox kii alal jox kii mu rafet kii mu ñaaw kii dara kon donc il faut ñuy accepter loolu ay lobby falul nit ay lobby nañ arrêté lobby lobby mu ñu lobi yëpp dañu yàqal président Macky Sall lobby bi ñu lobby di forcer nit yëpp dañu yàqal président Macky Sall nañ bay président Macky Sall mu dem a xelam nañ bay président Macky Sall mu dem ak xolam

du ñu bëgg mu dooleel ñu jëmm ji di président Ousmane Noël Dieng parce que bu ko doolelee bu doolelee président Ousmane mooy dooleel na Kaolack Kaolack sans Ousmane Noël du dem wax jee bëri ñu ngi lay ñaan Kaolack yëpp damay wax au no de tous les jeunes de Kaolack waa ñëpp ñu ngi lay ñaan nga jël ñu président Ousmane Noël ngir yàlla ak yonent bi ak liggéey bi mu def. ak lépp lu mu def ci Kaolack nga dugal ñu ko si liste député yi ah ñu fale ñu ko député parce que moom xam nañu bu ñu ko falee député ñun suñu naqar dina jeex parce que moom moo fi nekk. président de la république Macky Sall législatif yi ni ñëw ñun waa lew na na lew na lépp ak ni lew na toll ki ñu bëgg Macky Sall ah, ci tuuru xadara bu lew Léona Niassène kër maam xalifatul xaaji Mouhamad ñu defal Ousmane Noël mi député ndax. nañu defal Ousmane Noël député ndax moonaam ndax maanaam ñi nekk Kaolack bëri na lool waaye moo ñu yëg te ku lay yëg nag da nga koy yëg